thank you ma sister maa ngi nuyu ñëpp euh, sama teewaay di woon dara lu dul ñëw masawu leen sunu président masawu jeunesse bi masawu ñëpp ñi nga xam ne tamit actuellement ñi ngi nekk euh, en garde à vue ndaxte képp kuy xeexal sa réew rek lu mel ni dal la war na ñu mën a ñëw masawu la wax la gàcce ngaalaama ndax sunu bopp lañ ko defal. Mhm. waaw est-ce que bi nga duggee jot ngaa gis le président Ousmane. actuellement nii rek dafa xaw a pour ñu gis ko ndax. Euh, fi mu ne nii dafa dañun dafa nekk ci ay soins ba pare ñu ne ñu xaar leen ba ci kanam quoi loolu la waaw. d' accord mais suñu jox nañ ko suñu yóbbante. Mhm. Mhm. d' accord alors Sankharé dañuy ñëwaat ci li nga xam ne moo xew démb ba tey mu waral lii tey. Mhm. Euh, situation boobu boo ko doon analyser lan nga ñu ci mën a wax. c' est aberrant. est triste it's really sad what's going on in our country. right. it's really parce que bu ñu demee ba koo xam ne ay jeunes dañu yaakaar ci moom. mbooloo mi mu fiy drainer actuellement ki ngoo ki yor nguur gi sax drainer wul loolu. ay nit yaakaar ci moom yaakaar naa ni bu ko ngu bu ko bu ko bu ko bu ko justice woowee war na war na waruñu koo tànnal yoon comme ni mu koy waxee la fois passée jot nañ laale tey mu ñëw ne day jël yoonu boppam maanaam justice bu la wooyee nañ la bàyyi nga dem wuy ji ci jàmm ndax keneen ki kenn tàll kenn tànnalu ko yoon moom nag mi ne day dugg ji wuy ji te booy wuy ji nag ah wax dëgg yàlla bu fekkee jàmm moo la tax a jóg encadré ma normalement ma jaar ci yoon heure bi ma wax naa yeg si heure boobu da nga woolu daal bu ma wax fan laay jaar fexeel ba naa yegsi bu yegsiwul nag bu ñëwul foofu ñu mën a wax mais nag waroo ko wutal yoon loolu daal lañ ci mën a wax d'accord mhm. alors li xew itam ci biir euh, salle bi après salle bi li ko jot a xew ba mu feebar ñu war koo indi euh, ginnaaw bu mu yegsee këram dégg nga itam li nga xam ne jot na ko posté euh, suma assistance boo ko waroon jël si seen ambulance diggante fii ak këram soriwul la fa jot a xew itam na ko gisee c'est triste mhm. c'est triste comme ni ma koy waxee rek mhm. fii doomu aadama bu fi nekk nag te lii mënti xew lépp ñoom la ñoom la du kenn parce que waa ji boo ko woowee muy jóg di wuy ji ba ko muy bàyyi ko ba mu yegsi li mënti xew ñoom la te tak fii nag kuñ fi woo say mbokk jóg wax dëggam de fii tey buñ ma wool woon samay mbokk diñu dinañ jóg yow tey buñ la wool woon say mbokk dinañ jóg lu fi mënti xew daal ñoom la ñoom ñoo yor yat bi ñi war a wax daal nañu wax loolu am luñ loolu daal laam ci lu may wax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mhm. ndeyu kenn moom ko bàyyu kenn moom ko réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mhm. jeunesse bi nag am nañu droit ànd ak ku leen neex mhm. te dañu sonn dañu tayyi we tired we really tired we need peace in this country jàmm la ñu bëgg ci réew mi développement la ñu bëgg ci réew mi mais pas di ay xoxata c'est fini de li nga xam ne xewoon na ci yeneen réew yi li nga xam ne xewoon na auparavant c'est fini vous n'avez plus le monopole de l'information vous n'avez plus ce monopole donc foog ñu may ñu jàmm war a ñu rey ba ñu jeex dugal ñu ci kaso yi bu dee loolu moo gën a sedd ñu ñëpp jóge si ñiy jógee nañ États-Unis ñiy jógee Europe ñiy jógee fu nekk pour ñëw teewal suñu réew te réew mi nag ñoo ko moom fu mu yem neex mhm. alors ci brutalité boobu la ñuy wax sax ak acharnement bi nga xam ne ñu ngi koy def journaliste yi ak ñeneen ñi nga xam ne ay lam daal lañu gis nga homme de tenue ni ñu dalee seen kaw vous en tant que sénégalais patriote noo ko gisee métti na mhm. parce que yéen seen i liggéey ngeen di def ñun suñu liggéey la ñuy def métti na lool mais nag kaa wax la dara de. Mm. ni euh, kuy def lu ñaaw doo bëgg ko wone mm-hmm. te bu ñu sañoon lii ngeen di def ni dool doo leen ko def mais am ngeen droit bi vous avez ces droits. Mm-hmm. parce que dañ ko fi xeexoon. Mm-hmm. ba tey ngeen am ko da ngeen koy téye te incha allahu rabbi le combat continue te du ñu bàyyi. du ñu bàyyi. d'accord léegi boo amoon benn message booy lancer jeunes yi lan lay doon. just tell la jeunesse réew mi ñoo ko moom. tey ñun dañu sonn ñun ci àll bi la ñu màggee. on a grandi à l'étranger. tey bu ñu sañoon suñuy doom duñu juddoo ci àll bi tey dañu sonn dañ we tired we just tired period dañu bëgg a retourner suñu dëkk ñoo ko moom te nag la ñeneen ñi def chaque chaque pays a eu son chapitre noir dans l'histoire dëkk bu nekk xeexal na boppam maintenant is our time tey la jeunes yi di gën a torox tey la ñu gën a sonn léegi nag deewatuñu ci géej gi dematuñu aux États-Unis fii la ñuy toog bu fekkee ne nag ah rey seeni jeunesse moo leen gënal ndaxte tey jeunesse bu fi am tey jeunesse bi nekk biir Sénégal ku am da nga koy ndamoo ñoom tamit ñu am jeunesse bu mel nii amuñu dara luñ leen di jiiñ lu dul ay terrorisme di leen sàkkal pexe ah kon baax na mais daal fu mu yem neex. d'accord waaw. ci wàllu jeunesse bi itam ki nga xam ne moom moo ñu jiite ministre de la jeunesse ñu mën a wax euh, dañ ko fal. Mm. ñun ki ñu sànni loon suñuy carte 2011. Mm. rayante ba teg ko fi ñun kooku la ñuy waxal. Mm-hmm. am na ñoo xam duñ ci kooku mooy jël décision ñun kooku la ñuy waxal. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla jarul kon jarul wax. Mm. jarul wax am na ñoo xam ne jarul jarul yàq sax sa kii ci ñoom. ils ne font pas le poids. am na ñoo xam ne ils ne font pas le poids. il mm-hmm. faut ñu leen di tudd. d' accord that's it. d' accord mm-hmm. wàllu wàllu substance bi nga xam ne itam ñu ngi koy wax naan dañ ko sànni wala def ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ba ñenn ci parti di jóg naan lu ko mën di dal président Macky Sall la alors vous. ñoom la mm. tous les moyens sont boo leen ko bàyyi woon daal mu wuy ji ci jàmm mm-hmm. dina ñibbi si jàmm mais tous les moyens sont bons pour ñu faagaal bu ñu la mënee posone mm-hmm. dinañ la posone mm-hmm. bu ñu la mënee jiiñ viol dinañ la jiiñ viol bu ñu la mënee yenu ci tali bi nga def accident de lu tous les moyens xeex la doo xeex ak nit ki ba pare nag naan ma du fii nga may door wër mais nag garde bi le garde fou c'est le peuple c'est la jeunesse ñun daal ñoo mun a protéger Ousmane Sonko ñoo mën a protéger suñu réew te ci kattanu suñu borom dinañ ko def. Mhm. par exemple bu ñu gisee le cas de Dambodj bi ko dal la dernière fois ñu ne dañ ko tiré sax bal yu nga xamante ni ko dóor bu ñu demee ba réew mi toll foofu est-ce que réew mi toll foofu fi ne nii personne n'est l'abri bu ma génnee léegi mën nañ maa dóor bal keneen ak keneen fii ñi fi nekk ñëpp. fi mu ne nii personne n'est à l'abri. moo tax nag est-ce que Sénégal la ñu nekk itam. ah adduna moo toll foofu. ndax ku toog ci télé def euh, émission génn ñu nar laa àdduna moo toll foofu mm-hmm. faut pas ñu fi nekk di jouer émotion mënoo mm-hmm. mënoo di xeex ak nit ki état ku ko lijjanti mu lijjanti la mënoo mm-hmm. di xeex ak nit ki di ko dóor fii mi ne nga naan fii la may dóor ak non non non xeex la bu ñu la mënee rey dañ lay rey loolu rek la te ñoom loolu lañ fi nekke mais nag c'est triste bu ñu demee ba un état di faagaagal ay doomu réewam c'est triste c'est triste taxawaayu ndaw yi la war a doon jàmmaarloo amuñu dara pacifiquement jàmmaarloo rek pacifiquement nee naa leen jàmmaarloo pacifiquement yesaay ah d'accord vu que États-Unis nga jógee ñoom ñi ngi lay seetaan à travers ci euh, les médias loo leen di wax. yes just to tell the world the international opinion. Mm -hmm. that we here in Senegal West Africa. the reason why why the youth. you know are marching the the the, reason why we here today. because mhm. we poor we tired. we tired the sea. Mhm. we tired the Atlantic Ocean. Now we want to stay in our country and fix it. And the president, which is here in the country, 2011, we was here and we fought for him, for him to be in, this, in, in, in his position. But after he got the power, he's against his youth and we're not going to accept it. Now we're telling, we're telling the world, we're telling the international opinion that we're going to fight until they kill us. And for, inshallah, Rabbi, we're going to take back our country. we tired, we poor, we suffering, we, we, we just we, we just tired. We just tired. It's high it's high time now. Mm -hmm. It's high time now we're gonna take back our country. ci kattanu sunu borom. Thank you guys.